waaye du dafay taxaw taxawaayu woor yoo waroon a woor te wóoruloo ko déedéet maanaam da nga am tuyaabay kuy woor bis yépp ba faw boo wooree juróom-benni fan yooyu maanaam li ñuy wax gunge da am yoolub koo xam ne lu dul correcteur ki rek woor na ko dundam jeex waaye tekkiwul nag ne dana fay la nga faatoon déedéet naka noonu kon julli fay faat yooyu ñuy waxit dañoo juum tuyaaba ja joxe waaye du kii nit ki mukk du baal nit ki mukk waxtu yam waroon a julli te julliwu ko faw war na koo fay juróomi at yi nag bu fekkente ne yaa ngi def julli goo julli teg ci juróomi julli bu amee at rek nga matal léegi daal nit ki xam na ne bis bu ne juróomi julli la at mi ñetti téeméeri bis la ak juróom benn fukk ak juróom ak kaar kon dana xam julli yi ko war yépp nu mu toll ah koor la de looloo gën a yomb waaw kon na mu na mu waxaat ko boog. waaw. na commencé waaw. waaye daawul fay gis yooyu mu daan. gis régal waaw ko jaawaleeg julli gi moom gis nga ba tey wax nañu ne mbirum régal kenn ku nekk ak sa aada. ba ba muy yokk am na ñoo xam ñetti fan lay doon ñii juróom benn fan am ñoo xam ne ñaari fan am ñoo xam ne ci benn bés am na sax ñu si jaar jaari bariwul waaye am na ñu si jaar jaari am ñoo xam ne ci fii seen baaraamu sànq leen lañ ko gis am ñoo xam ne duñ ko gis daañu yi daañu wax ne sayyidatuna Fatima bint Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mosu ko gis daawu ko gis waaw bu fekkente ne nag euh, nit ki xam na aadaam kon at mu ne dana mën a xam ñaata bis la ca dog fekk na mën na wàññiku wàññiku bi mooy bu fekkente ne day toxu bis yi koy gis ci weer wi masalan du toog weeru lëmm soo koy gis dana ci am jamono yoo xam ne mën na koor gi mën na ñëw fekk fan yi muy euh, fan yi nga xam ne ci la koy gis mu am ci fan yoo xam ne day dajante ak dañ koo dañuy wori masalan xam nga ni ma wax mel na tey bu fekkee ne juróomi fan la daan sax bu ko gisee dana am juróomi fan mu soogaa dañ waaye du caa génn toujours weer wu am ñaar fukki fan rek mu gis ko léeg lekk weer wi am fukki fan ak juróom-ñett mu gis ko wala fukki fan ak juróom-ñaar mën na dem ba nga xam ne weer wi day am di dellu gannaaw ba bu amee weer wi amee juróomi ko mu mën na dem ba nga xam ne bu weer wi amee ñetti fan. léegi bu ko gisee ci ko jiitu fekk weer wi terewul mu gis ko ñetti fan wala ñaari fan weeru koor wi soog a teru. kon ci at moomu li muy bañ a war a bañ a julli ñetti fan lay doon wala ñaar du doon kon juróomi fan yi nga xam ne ndax li ma wax leer na li loolu kon dana wane ne faw dana ëpp waaye du yées bu seetee aadaam moom baa xam ñaata fan la ko gis rek mu seet juróomi weer yooyu nga xam ne mooy juróomi ramadaan yi mu xam ne fayu ko ko seet mën na bañ a bari daa ko fekkee ne moom ci ñetti fan rek la koy gis trois fois cinq quinze fukki fan ak juróom rek lay woor mu mat ko waaye lele dana ko war lele mooy lan nit ki am bor ci koor gi fayu ko ba bëggee ba bëggee neen koor ñëw bis bu woree rek lu fees ñaari loxoom ci ceeb wala ci dugub dana ko sarax dana ko sarax miskin ndax xam ngeen li ma wax waaw lu leer la boo waree fay nga am bor ci koor fayuloo ko ba geneen koor ñëw fan yooya bis boo fayee rek da nga lele muur muur nag bokkul ak saa saa mooy li nga xam ne kenn ku nekk moom ngay joxe pour muuru koor buñ ko séddalee ñeent te mooy bari ci ñaari loxo moom lay joxe bis bu wooree ba jant soo dana joxe bari ci ñaari loxo yooyu loolu moo koy kaafaara moom mooy lele ci sàggan ci fay koor ba geneen koor ñëw loolu lay kon kooku di fay juróomi at yooyu le waxtu wooree ba ngoon jot rek dana lele bu ko neexee nag mu seet ni bis toll mu seet bari ci ñaari loxo yooyu wàññi mu toll bu ko peesee lu muy war a jar ci xaalis mu joxe ko wala mu natt ko joxe am na aada dama ne xanaa xam na ñaata bu gisee régal ñaata fan lay lay am ku nekk war na koo xam wala même bu dee yokku mu xam ne bu ko gisee léegi ci weer bii ñetti fan mën na dem ba muy am ñeenti fan dem ba muy am juróom fekkee ne day yokku ci ñiy yokkule te na ngeen ko jànge ci xalit rek dafa am foo xam ne bu fa àggee dootuñu ko compter ndax dañuy jàpp ne wéradi la waaye moom kenn ku nekk am nga sa baax maanaam fan yi nga koy gis na muy war a toll rek fan yi nga koy gis ni muy war a toll rek ci misaal noonu la war a noonu ngay jàpp ne at mu ne am nga ca ci weeru ramadan fan yu toll noonu yoo war a fay bu ko defee ba muy juróom nag mooy juróomi at yooyu moom la moo gën fay fay li nga dog ci koor sax liñ ci gën a santaane mooy nga bañ a noppalu bu weer wi jeexee rek bisu kore bi kenn du ko woor waaye bisu kore bi euh, jeexee rek nga dal di woor tàmbali woor nga xam ne bis bu ñu wax ni ku ko woor yàlla dina la defal nangam daañu la jéggal bàkkaaru nangami at daañu la ubbil buntu àjjana daañu ni ñuy wax ci nisu Shaaban ak ak yooyu yëpp bu fekkee ne da ngaa am bor mën nga ko cee fey kon it dana mel ne ki fay ki nga xam ne amul woon bor waaye dafa weer uh, bis boobu ngir am tuyaaba ji yow mi ci fay da nga ci gañe ñaar ndax da nga ci fay ba noppi da nga am tuyaaba jooju naka noonu eh, bis yi nga xam ne bisi bijjanti la nekk juróom-benn fan yooyu ngay toog ci bisu koré bi ak yëpp nga fay ci man nga ciy fay ba noppi amaale ci tuyaaba jooju. dafay laaj ba xam ajjuma ndax mën nañu ko waajal fajar maanaam sangu xëy sangu fajar dem ba ajjuma jot ngi. ngir tëngaay ajjuma kay moom dañ ne boo sangoo ba noppi di lekk toog fa di lekk sax di añ sax da ngay sanguwaat wala amuloo tëngaay tëngaay li nag du farata waaye lu ñu sopp la lu ñu fonk la léegi daal tëngaay li moom mënu la nekk. boo sangoo rek solal sa yére boo solal sa yére jubalal jumaa ja noonu lañ santaane wala boog nga xam ne kon dangaa sangu rek pour set waaye sangu amuloo ca jumaa amuloo tuyaaba ji ndax bu fekkente ne danga lekk lu woyof lu mel ne da naan kaasu meew wala kaasu kaasu wala yooyu moom jéggale nañ ko waaye nag da ngay sukk di di dànk de <laughs> noppee rek boo bëggee tuyaabay tuyaabay <laughs> ca ajjuma da ngay sanguwaat sangu ajjuma nag bari na tuyaaba lool nag lu bari tuyaaba la sahaaba yi ñu ci xeroon la benn bis Seydina Omar bi mu nekkee xalifa mu toog ci kaw min minbar bi di ba xutba Seydina Ousmane agsi mu ne ko aha ah, waxtu yi nag ngeen di julli si mu ne ko ah man de ma ba ma déggee nodd gi rek damaa dal di jàpp rek dal di aw ci yoon mu ne ko ah jàpp nag te sangu woo ngeen xam ne kon sangu am na solo ci bu dee cangu cangu tel korité wala tabaski yooyu moom bu la neexee sangu ca fajar ndax cangaay loolu pour bis bi la cangaayal ajjuma nag ngir julli gi la moom moo tax danga ko ci war a jokk da nga ko ci war a jokk cangaayal ajjuma euh, korite nag moom bis bi la léegi bu fekkoon ne weer wi feeñ ne boo xëyee su la neexee nga sangu ba set toog def lu la neex ba julli gi jot nga dem julli ji am nga tuyaa bay cangaayal iit ndax bis bee tax ni nga xamee ne euh, jullik ajjuma yére yi ngay sol donte yu màggat la mu weex moo gën moom lañ ci gën a taam bu dee julli it mu yees nay lu bees donte dafa ñuul wala nu mu mën a melit na bees lañ ci gën a loolu wute nañ ko. benn jigéen la mais day laaj ndax daggan na ci jigéen mu jébbalu ci keneen ku dul borom këram. waaw laaj bu doy waar a ngoog ndaxte benn <laughs> jigéen dafa am ay xaq. boroom këram yu mu ko ameel borom kër bi am ay xaq ko ameel bu fekkente nag léegi yi nga xam ne ameel na ko boroom këram xam na ko matal ko jéblu moom leneen la du mbiru sharia mbiru xaqiqa la mbiru sharia mooy war-war yi nga xam ne moo war jigéen ji ci ku góor ki war-war yooyu sallallahu alayhi wa sallam nee na ku góor ki bu amoon ay góom ba mu daj yaramam muy ci mbir ku jigéen ci ñoom mark ko yépp ba mu set du tax mu jot xàqam nee na waxtu wu génnee këram ci lu dul ndigalam tànk yu mu jéggi ba muy dem ba muy des yépp ci safara la ko jaar mu ni waaye jigéen ji bu jullee julli juróomam ndax julli juróom farata la farata moom kenn munu koo yenul kenn kenn sañu ko farata moom nit ki da ko loo dégg ñuy waxit farata ji moom na am ba noppi woor weeram wattu boppam topp ndigalu borom këram bu keroogee ñu ubbil ko juróom-ñaari bunti àjjana yi mu tànn bu ko ci neex dugg ca foofu moo fi gañe moo fi gañe góor gi ndax góor gi moom mënul loolu ndax ku jigéen ki moom gannaaw farata yi rek bu ko defee naafi la yeeg koori ngàtt nga yeeg yooyu yëpp ngërëmal ki mu nekkale ko ëpp ëpp doole moo ko ëpp tuyaaba ci moom ndax fekkonte ne dafa bëgg a woor bis boo xam ne bii dafa bari tuyaaba ni ki ashura wala kazu rajab wala sha nisfu shaaban wala yooyu lépp mu tere ko bu wooree non seulement du ci am mm, tuyaaba mais dana ci am bàkkaar waaye nag farata ji moom bu ko ku góor ki ne woon bu ko julli na ko julli bu ko nee boo jullee boo jullee julli eh, farata gi wax lu tiis itam na ko julli ndax kenn du topp mbindeef ci mooy sans borom ndax yàlla bi muy sàkk mbindeef mi kenn fekkiwu ko kenn dimbaliwu ko kenn amu ci xàq lu dul moom kon lim la sant amul benn jaam bu mën a màgg màgg ba mag ba tere la ko am na rek genn jagleel gu ñu jagleel yonente bi sallallahu alayhi wasallam sooy julli mu woole nga wuyu war ngaa wuyu moom rek nag ci mbindeef ba mbindeef yàlla yi jeex moom rek moo ci war a mën a woo kuy julli mu dog julli gi wuyu ko du keneen bu fekkente ne nag euh, ndaw si li ñu waxoon léegi julli na julli juróomam matal ko ni mu mëne woor weeru kooram lu mu ci dog fay ko wattu boppam bañ a jàdd topp ndigalal kooku nawaafil yi nag nawaafil yi jébbaloo ci gën xaqiiqa la nag boo ko waxee ñu jàng sere kese te xamuñu leneen ñu weddi ko ndax ñàkk xam bu fekkente ne nag du fanq benn xaq ci xaq yi nekk diggante ak boroom këram sañ na ko sañ na ko bu baax a baax bu mu fanq nag benn xaq ci li mu warlook boroom këram bu mu ko ci naqaral itam bu mu ko bu muy def itam loo xam ne daf ko koo tere mu def ko waaye lu dul nga xam ne daf ko tere ngir dëng ko fekkee ne daf koo tere dara mu def ko ngir te bopp moom moo xam day ziyaare ji wala lu muy defi ca kam jébbalu mu tere ko te terewu ko ko ngir dëng ngir dënge ko walla ngir ne ko jublu ma foofu bu dul bu dul loolu waaye bu fekkee ne loolu la ko jubloo jubloo ko ngir dënge ko wala ngir loolu def ñàkk koo neex te mu jaar ko ci yoon bu dul loolu bu ko teree na bàyyi la ko tere waaye nag sañ na ko mu laaj kon boobu ah, xam jigéen boo xam ne karoom dafa dolliku xanaa dolliku bu yokk la ci jublu xanaan hmm. zadat la wax bu fekkee karo gi dafa dolliku ndax war na ci moom mu tiim dara dolli ko maanaam moom moo ko dolli mu tiim karaw gu dolli ko lu mu joteeg tiim man ma waa li mu laaj dama li mu wax de man xaw ma ko waaw dama bu fekkee dafay dafay yokk karawam ki yokk karaw ak ki yokkul karaw ñoo yem ci tiim la leen di tax a tiim mooy ñàkk ndox wala am ndox te feebar nga xam ne boo jàppee sa tawat dana dolli ko wala dana yéex a wér walla tawatuloo waaye boo jëfandikoo ndox mi da nga tawat yooyu mooy tax a tiim benn da nga ñàkk ndox wala nga feebar te boo jàppee feebar bi yokku wala mu yéex a wér wala am nga ndox wér nga waaye boo jàppee feebar yooyu mooy tax a tiim ki jóg karawam ak ki jógul karawam ñoo ci yem ndax tiim moom muy jàpp muy tiim bu dee jàpp bopp bi daf koy masaa du ko raxas bu dee sangu itam sangaayu farata bi nga xam ne ne euh, Seydina Abdullah ibn Abbas dañ ko doon laaj jigéen ji sangu te lettu te mu ne dana jaxase lett yi ba ndox mi dugg ci lépp bi ko sayyidatna Aïcha yëgee radiyallahu anhuma dafa bu ko déggee dafa ne eh, waaye ibnu Abubakar teewoon mu ne rek na firi karaw gi mu wax day du noonu ndax man daanaa sangoon te ak daanaa sangook rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci benn ndab te duma weesu ñetti tànk sotti ko ci sama bopp ci cangaay kon nag ci tiim gi ak jàpp gi loolu mën na cee bañ a feeñ li am kay moo di li jokk karaw gi mooy li araam yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na laana allahu alwasilata walmawsulata lahu walmasitata walmutafallijata walmutanammisata aw kama qaala alayhi salaatu wasalaam ay sàkka la rëbb na ki jokk karaw ak ki ko koy jokkal rëbb na ci wat karawam jigéen ji wat karawam ba fii ba ca kaw pour leeral jëfam yu mel noonu ak lépp loo xam ne day soppi bindu nit ki lépp luy soppi bindu nit ki doonte sax niñ ko sibe ak niñ ko rëbbe lañu bañe itam ki nga xam ne day soppi li mu doon muy góor di sol yére yoo xam ne yérey jigéen la nga xam ne ko gis jigéen nga koy teg wala muy jigéen di sol yérey góor yoo xam ne ko gis góor nga koy teg loolu yëpp araam na naka noonu soppi sa yaram ba mu xonq cur ba nga xam ne ku la séen rek defe ne nit ko weex nga tubaab nga wala naar loolu itam tere nañ ko kon jàpp ga moom xaw ma lu ci jokk karaw gi wuti ndax jokk karaw du tax a jàpp du tax a tiim day fekk nga xam ne mënuloo jàpp tiima war ci yow te mooy ñeenti sart yi moo waxoon bu nekkee ci yow kooku moom da nga war a tiim moo xam jokk nga sa karaw wala jokkuloo sa karaw bu nekkul ci yow da ngaa war a jàpp booy jàpp nag da ngay masaa sa bopp rek jeex waaye nag li araam jox gi moom ci bopp moom lañu ñu tere dama doon laaj ndax kii ji góor ni muy jaamu yàlla ak jigéen ni muy jaamu yàlla ndax dafa am différence ndax damay gis souvent bu mbooloo toogee góor ak jigéen toog ba julli waxtu julli jot bu góor ñi jógee di jàpp pour pour waajal waxtu wi jigéen ñi toog buñ paree ñu àndandoo julli ak parlu mi góor ñi am souvent ci ci jaamu yàlla gi jigéen ñi duñ ko am deuxièmement may laajaat lan mooy wàllu ci jigéen ci lislaam ngeen jéggal ma tuuti euh, hadis bi may bëgg a wax du sama wax man waxuma ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko wax maanaam euh, dafa ne woor na ba ngoon jot ñu ubbil ko àjjana mu xool gis mbaxana ya bari ca lool musóor ya néew ja ñu ubbil ko safara mu xool gis musóor ya bari ca lool mbaxana ma <laughs> mbaxana ya néew ca ngeen jéggal ma loolu bu leen ko jàppee nag lu dul ni ma koy bëgg a wax ma misaal ko xuppe la ngir bëgg jigéen ñu farlu ndax yu bari dañoo jàpp ne waru leen loolu rek la yu bari dañuy jàpp ne daanaka soxlawul benn ñoo ëpp lu ñuy jëw ndax ñoom kenn ku ci nekk yaa ngay seet sa moroom fa mu jaar la mu sol mbubb bu ko solee ñaar yoon nga ne ay miin lugaam gi xanaa moom bis bu nekk lii lay sol mbaay ku la romb nga seet fu mu jëm ak lu mu fay wuti ah diw de moom day dem kër diw sàngam rek lay dem boo xewlee dara joxe fukki dërëm nañ la jox téeméer kala koy jox xamuloo xolam sedd na ci wala déet riba lay doon am jot lool nag lu ci bari nag am jot gee ko waral jot gu bari gi ndax góor ñi dañuy liggéey am ay warugar yoo xam ne dana dox seen digganteeg lu bari bari léeg-léeg toog ci jataay boo xam ne dañuy war a toppatoo affaire yi jàmbur seet ki mbubbam gàtt na wala dafa ñeme tilim wala nit ki dafa bëgge wala kii daal lu nekk rek nga seet ko ci nit ki te yow doo seet sa bopp te yi ngay wax yépp yu ci bari am na ci yow waaye doo ko seet yooyu nag gannaaw jëw noonu la garaawee toppatoo mbiri jaamur itam noonu la demee wax lu la wóorul te ñoom dañuy faral di daje ndax dañoo am jot dañuy faral di dajaloo te dajaloo moo xam waxtaan bu neexee rek jëw dugg na ca bu ngeen dajee rek te du ngeen nit ñoo xam ne mbiri xam-xam ngeen di toppatoo la ngeen di fàttalente ay kii lu dul waxtaan ni waxtaanu àdduna rek boo tul jëw dana dugg jaxasoo nag yi ci nekk dafa bare gannaaw jëw wax lu dul noonu loo xam ne wóoru la bari na ci te sallallahu alayhi wa sallam nee na doomu aadama dana wax baat boo xam ne du ca jublu lu dul reeloo ñi mu nekkal yomal xiyaam dana ci xalambaay ci xuri safara juróom-ñaar fukki nawet ñee doomu aadama dana xuus ci lëgg-lëggi safara yoo xam ne dara wutu waralu ko dul benn baat kese bu mu waxoon am jot googu ak jaxasoo gu bari gi toog di waxtaan moo waral musóor yu bari yooye ca béréb ba te néew ca béréb ba ca des góor ñi seenu ñàkk jot ak liggéey lu ñu indi seen kër bokk na ci li waral seenu jot bariwul ba ñuy jaxasoo ba ñoo gën a néew lu ñuy jëf jigéen ñi itam lu ci bari noonu nga xam noon lañuy seete seeni moroom la mu sol la mu am la mu ñàkk fa muy dem la muy doxal noonu la ñu ragale ñoom it seen bopp ba nga xam ne yu bari sañu ñemewuñ ko bu diw xewlee fii indi nangam ak nangam léegi yow faw nga indi lu toll noonu wala lu ko ëpp daal di sas sa bopp loo xam ne fu ne mën nga faa dugg leb yi fi jaamur doo ko fay bari na ci nag ñu ñeme bor lool itam ñeme bor yépp nag bu fekkent ne boole nga ko tayel lu jëm ci yàlla jàpp moom ni mu waree ku jigéen ki la waree ku ni mu waree ku góor la waree ku jigéen ki jàpp farata la inna taharat la day naa wajabat zikran wa ijmaan wa sunnatan sabat taarikuha bi xeyri addin uqila bi xeyri usulin uqila yuqtalu addan duna kufrin fa aqila laab ni julli ware la laab maanaam ci njàpp bu la waree bu sa njàpp tojee wala cangaay bu la cangaay waree noonu laab gi ni mu waree képp ku ko weddi ci sharia dañ laa war a taxawal rey la ndax mu ngi mel ne ku weddi julli ne warul ki ko weddiwul nag te du ko def laysa lahu bi dalika tayammum yawmal qiyamati na jahannami tiimam boobu mu ngi si al jawharu nafis bu ci am yawmal xiyaam lu pay lu dul safara su itam du sama wax man kon li war ci góor gi moo war jigéen ji wuute nañu rek yenn ti jaamu wuute nañ nuñ koy defee lu mel ne ki julli am nañ yenn ti defini ñu war a wuute moo di jigéen ji dañ ko sant mu muuru ba kanamam rek ak ñaari loxoom yi mooy feeñ bu taxawee day day tappale ñaari tànkam ko góor dafa war a soreel ñaari tànkam naka noonu buy sujjóot ni nga xam ne jigéen ji dafa war a tappale foofu ay tànkam ak i loxoom góor gi dafa war a yërale maanaam sore la yu mel noonu moom la ñu wuute waaye li war moom ñaar ñoom ñaar ñëpp la war ni mu waree kii la waree kii alquran bañ na ko fu mu waxee man amila salihan min zakarin awun saa lay wax kon fu tuddee góor tudd la fa jigéen suratul ahzab innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashirina wal khashirati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was sabirina wal hafizina furujahum wal hafizati waz zakirina allaha kathiran waz zakirati a'adda allahu lahum maghfiratan wa ajran aziman fu mu tuddee melaw góor googu rek tudd na fa melaw jigéen ji kon ñooyam ci li leen sharia teg waaye falal na jigéen ci kaw ay naafilaam nay jubóog ki mu nekkal moo ëpp tuyaaba rek waaye lépp ñoo ci yemle foofu it nag woyofal la kon nag gannaaw jigéen ji lim jëf lañ koy fay góor gi lim jëf lañ koy fay te liñ sant kii lañ ko sant amul xàjjale na kon góor ak jigéen lu dul góor ëpp nag li ñuy wax responsabilité góor a ko ëpp góor ko ëppale ndax moom mooy sàmm bi te bu ëllëgee moom lañuy laaj ndax góor gi war na bu jigéen ji xamul ay farataam war na ko koo wax bu mokkalul lu mu jullee war na ko ko jàngal bu ko ko jàngalul ku jigéen ki sañ na seeti keneen ko ko jàngal ah keroog bu ñu layoo bu fekkee ne jàngalu ko ko bu ñu layoo mu yeyu xam na ne mënu ko te ñàkk man moo tax du ko def bu bu yomal bu ñu layoo ko ko jigéen ñi kon lépp lu góor ñu am wàll am nañ ca wàll ndax lépp lu ñu leen teg teg nañ leen ko lépp lu ñu leen dig ci lu baax it dig nañ leen ko son nañu ay jigéen yoo xam ne buñ seetee ci saxaaba yi daañu gis jigéen ñoo xam ne daañu jëf loo xam ne lii néew na góor ñu ko man Sayyidatuna Aïcha benn bis lu mat ñaar fukki junni dinaar dikkal ne ko ci benn bis mu joxe lépp ba bi muy reer ba bi muy reer ñeex la doon reere aleykum salaam ba mbindaan mi ne ko li nga joxe lépp tey ci alal xanaa boo ma waxoon ma jënd la yàpp wala ma jënd mburu mu ne ko mënoon nga ciy jënd yàpp wala mburu mu ne ko boo ma ko joxoon boo ma ko fàttali woon ma def ko waaye fàtti naa ne kon kooku xam na ne liñ sant góor ñi lañ ko sant xam na ko boobu laaj defe naa loolu doy na ci góor gi ak jigéen ji ñoo yam ci sharia li ñu kenn ku ci nekk sa farata liy farata ci yow mooy farata ca kee jigéen ji fi mu wuteeg góor gi mooy muuraay gi liñ ko sant mu bañ a feeñal yaramam góor gi awraam mooy li tàmbale si jumbo xam ba ci ñaari woomam li ci def li ci lu ci feeñ ci lu dul loolu du ci am bàkkaar jigéen ji nag lu dul kanamam ak ñaari loxoom tudde nañ ko awra warula feeñ ci julli la gën a euh, foorati rawati nag ba ci karawam sax kanam ak gannaawam itam noonu kon bu dul ci julli war na koo muur loolu daal mooy li ñu wute ci des yëpp nag ñoo ko bokk. Sëriñ Fall day laaj dooni astajib lakum mu ne aaya boobu man lan mooy melow jullit bi nga xam ne ah bu ñaanee suñu borom wuyu ko mu ne itam moom dafa nga firil ko. yuxsharul maru ala ma mata alayhi waaw laaj bu njëkk bi dafa wax ne udduuni astajib lakum suñu borom moo ko wax ci alxuraan ñaan leen ma may leen ku tabe ba naan ñaan leen ma de suñu borom rek a azza ndax li ma amee du jeex te tabeem yéemwul fenn addunaak alaxira ak tabeem xaju ci fa duuni astajib ñaan leen moo may leen ñaan nag dafa am ay charte yoo xam ne bu charte yi dajee rek ñaan gi nangu na nga yëg ko ak nga yëg ko nga ñàkk koo yëg nga gis la nga doon ñaan ak nga ñàkk koo gis lépp ñaan gi nangu na charte yi mooy lan nit ki ñaan lu léwul bu mu nekk ci biiram lu araam bu mu nekk ci biiram fekk bu mu fekk ne biiram sàngara nga ci ba noppi muy ñaan wala lu leewul ba noppi muy ñaan duñ ko nangul li mu sol bu fekkee ne léwu ko li mu ñaan du nangu bërëb bi mu toog bu fekkee ne sañu cee toog bërëbu jàmbur la boo xam ne neexul boroom bu ñaanee duñ ko nangu fekkee nag yooyu mucc na ci mu jublu penku tàllal suñu boroom azza wa ay loxoom suñu boroom dana nangu ñaan ko bokk nag ci teggi ni ñaan bul ñaan lu paase ba noppi démb weeru weer yu feeñul woon ngay ñaan weer yu feeñoon démb te nga di ko ñaan tey lu mustahil la bu fekkente ne li nga sol ak li nga lekk ak fi nga toog lépp lu laab la nga jubli penku taalal suñu borom sellal nga teewlu suñu borom dana nangu sa ñaan nangu ñaan gi nag ñu bari dañuy ñaan ba noppi ñaan gi nangu ñu ne ñaan gi nanguwul te loolu tere nañ ko waaw naa ko ba tey dangay ñaan suñu borom nangu ñaan gi ba noppi xam ne nag loolu bu ñëwee du la jariñ ndax am na lu lay bëgg a dal te loolu bu la dalee li nga doon ñaan boo ko amee du du la jariñ dara mu fanqal la loola weccee ko li nga doon ñaan boo defee gisagoo li nga doon ñaan nga ne ñaan gi nanguwul wala nga bàyyi bañatee ñaan ñu xañ la lu bari ndax féeg yaa ngi continuer ñaan moom boo ñaanee boo gisul li ngay ñaan it continuer di ñaan rek loolu la ñu bëgg ndax waxtu woo ñaanee rek may nañ la dañ lay may di la may li naroon a tax doo mën a jëriñoo li ngay ñaan ba nga xam ne rek li ngay ñaan nag ñu jox la ko bu dikkee jariñ la te moo gën ci yow ñu soog la koy jox waaye feeg yaa ngi ñaan rek ñu ngi la koy may waaye bu la ko mayee rek gis lu tax gis lu ko gën ci yow ñu watte ko loola ñu defal la loola kon ñaan am na ay nit ñu ñuy nangu seen ñaan ak béréb yoo xam ne dañu fay nangu ñaan ak jamono yoo xam ne dañ fay nangu nit ñi ñuy nangu seen ñaan doom joo xam ne ay waajuram gërëm nañ ko dañuy nangu ñaanam ku am ngërëmal yàlla wala mu am ngërëmal wàll yi dañuy nangu ñaanam ku ñu tooñ dañuy nangu ñaanam aji tumuraanke yoo xam ne mu ngi ci réew mu mu dëkkul jaaxle dañuy nangu ñaanam aji woor dañuy nangu ñaanam ñooñu dañuy nangu seen ñaan nit koo xam ne itam borom cër yu sàmm ak lamiñ wu sàmm itam daañu nangu ñaanam béréb yi ñuy nangoo ñaan ak jamono yi ñuy nangoo ñaan béréb bàmmeeli yonent yi wala wàllu yi wala gaañu baax ni dañ fay nangu ñaan naka noonu béréb boo xam ne bii dañ fay jàng alquran buñ jàngee alquran ba ki xam ne day def waqafam ba àggale diggante nangu ñaan la rawatina nag boo xam ne dafa wàcce ba jeexal tey kaamil bi mu ñaan naka noonu ci biir alquran ci biir aaya yi am na diggante yoo xam ne dañ fay nangu ñaan wa ida jaatumu ayatun qaalu lan nu'mina hatta nuuta misla ma utiya rusulullahi diggante boobu bala ngaa wax allahu alam haysu yaj'alu risalaati yi diggante boobu loo fi ñaan mu nangu ci woor bay dog nga xam ne itam diggante kii nodd fi mu tolloo ci hayya ala salaa ak hayya ala salaa ci hayya ala falaa hayya ala boo fi ñaan day nangu mboom daf fi nangu ñaan naka noonu itam ki nga xam ne dafa woor ba ngoon jot moom itam mu ñaan dañ koy nangu fu ñuy nangoo béréb bu ñuy nangoo ñaan la naka noonu booy naan ndoxum sam-sam bi nga koy bi nga ko tiimee di war a naan nga ñaan diggante boobu itam dañ ciy nangu ñaan di dal ndox bay sóob waxtu woowu dañ fay nangu ñaan ñaanee suñu borom dana ko nangu naka noonu jullit sa mbokk jullit moo xam ne nekku fi nga toog sa xel dem ci moom nga ñaanal ko dañuy nangu ñaan nga moom itam kon ud'uuni astajib waxi suñ borom la ñaan leen moo may leen ku ñaan suñu borom rek dana la may charte yooyu nag mooy teggi ni ñaan mooy tax ñu nangu ñaan bokk na ci teggi ni ñaan nga jublu penku tàllal sa ñaari loxo boo àggalee nga tafli ci sa ñaari loxo raay ci sa kanam loolu bokk na ci teggi ni ñaan ak bi ngay ñaan nga jublu penku yooyu bokk na ci teggi ni ñaan ñaareel bi bàkkaar yoo naa ko lekk lu léwul ak tooñ ak sàggan ak xol bu tax bu lëndëm yépp dañuy de tax ñu bañ am na kay kii bu mu waxoon beneen bu mu ci tegoon ah, eh, yuxsaru nit ki ci melaw mu deeyee buy dekki ñu fang ko mu jëm ca fa ñuy daje melo woowa la fay demee mooy yox maru ala ma mata alayhi waa ji bu fekkente ne dégg ngeen ñu naan nit ki bu nit ñi bu ñu dekkee ni ñuy wutee ñii dañuy sañse dara du leen manqué dañuy sol bu bëgg tubéy am dal am mbaxana am kaala am lépp luy rafetal nga gis ñii daañu am mbubb tubéy duñu am dal nga gis ñi am mbubb duñu am tubéy nga gis ñi am tubéy duñu am mbubb nga gis ñi ngemb nga gis ñi xaaw fàlle yi dong seen ndigg moo leen di wër xaalu nit ki nag ni xolam mel mooy meloo bi bu fekkee ne bi muy dee xelam lépp ci àdduna ak xolam ci àdduna la nekk noona lay dekkee dekki boobu mooy ki nga xam ne rafle nga ci xalaat ëllëg sa xol rafle na ci xalaat ëllëg bi muy booy dekki kooku rafle woowu xolam rafle ci lu baax bi muy dee mooy rafle wu yaramam woowu bu dekkee di dox jëm ci bërëb ba ñuy daje bërëb ba jaam ñi di daje ñu àtte ñi di leen àtte loolu mooy yuhsharul mar'u ala ma mata alayhi doomu aadama bi ni nga xamee ne noonu lañu wutee kon ci seenu melo ci ñi solu ñii rafle noonu la ñii di gaawe ne luy naaw ñii gaawe ne fasu naaru góor wuy daw wala oto ñii mel ne kuy waaxu ñii mel ne kuy temp ñii di raam ba ci ñii bërëngu ca jëm ca bis ba ca jëm ca béréb ba te ñépp daañu dem ba àgg ndax bu fekkonte ne yow yaa ngi raam raam boo xam ne dafa yéexe ne benn kilomètre bala nga koy raam mu am fukki junni atit dana yàgg ci yow yàggaay boo xam ne danga dem ba àgg ca béréb ba mën na fekk mu gaawe ne xefinu bët ci ñeneen ñi béréb mu gaawe ne xefinu bët waaye dana yàgge ci yow ne téeméeri junni at nga di ko raam ci ab dagg ay lañ sa tekki pusa ba ba ngay àgg fa jaam ñiy daje waaye faw tey da yenu sa poids bàkkaar moom ngay jéggiwaale it siraat poids bi nga xam ne mooy bàkkaar bi moom ngay jéggiwaale yoxsharul mar'u ala ma mata alayhi mu ngoog ki nga xam ne itam leeru ngëmam dafa mel ne weeru laylatul badr wala mu leere na làmp ba gën a leer wala sondeel noona lay dekkee bu dekkee lëndëm bu gën a tëx leeru ngëmam moo koy niital fi muy jaar fi muy teg ay tànkam ba tey bokk na ci yoxsharul mar'u ala ma mata alayhi ci melo wa mu deewee ci ngëm kon nit ki bi muy dee li mu am ci ngëm li mu am ci yéene ju rafet li mu am ci ragal yàlla li mu am ci jëf ju rafet buy dekki mooy waajtaayam mooy aw meloom mooy warwaayam yuhsharul mar'u ala ma mata alayhi moom dafa déggee te ñu ne addiye moo gën sarax mu ne lu waral loolu addiye moo gën sarax yomb naa xam ki ñuy jox addiye ni mu ëppee daraja ki ñuy sarax rek ci zahir sax noonu lañu ñuy ëppantee noonu la ñuy sarax bi mën nga ko jox képp ku lot addiye bi doo ko jox ku mu danga koy jox koo xam ne kii da gëm ne am na ngërëmal yàlla waaye wala budul moom ka tax nga di ko ko jox da gëm ne am na ngërëmal yàlla ni ñu fule sarax ba ba fulub sarax àgg dañ koy fulaat dañ ci fulaat mu jëm ci addiye yeneen fulati mu soog a mën a jot addiye kon ndax bu fekkee ne dañu ne man xadama saalihiina tafa liggéeyal miskin mi ni ko liggéeyal xutbul xaws bi ni mu ko ëppee doole noonu la seen i mbir wutee ndax jaam bi nga xam ne nga seral xolam benn bis moo ëpp doole jaamu juróom-benn fukki at nga jox ko niroowul ak ki ngay jox nga xam ne danga koy sarax bi nga xamee ne booba xale la maam Cheikh amoon tool fii ñu daan ci bay benn bis bàyyi ñëw daal di man xadama saalihiina irtafa mu ne li baat yi la ko Cheikh wax ku liggéeyal gaa yi gaa yi yàlla yi saalixoon yàlla def na def dana leen yëkkati

wala ngay waxtaan wala ngay wax yu ñorul ak yooyu te léeg-léeg rawdu bu tedd bi am ci ñoo xam ni ñàkk xam bu ñuy dugg dañuy waxtaan ba ci bunt bi wa illaa maanaam du ñu duggaale njàpp wala ñu jàpp ni ki ñuy siyaare déggul li ñuy wax ma bëggoon daal foofu ku ñu fi leeralal ba beneen yoon nu mën a siyaare na ñu ko bëggee waaw laaj boobu am na maanaam moom it lool xutbul eh, xawsu dafay ku doon yonent sallallahu alayhi ku donn yonent nag canam yellee warugar yépp day taxaw sàmm yi dañ daan def bu ñu werantee ñoom seen bopp wala ñu xëccoo dara bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam àtti leen bu buñ tolloo ca gannaaw kër ga dañ naan Muhammad génnal waaye àtti nu Muhammad di ko woo alquran ne inna alladina yunaadunaka min waraa'il hujuraati aktharuhum laa yaqiluuna walaw annahum sabaru hatta taxruja ilayhim la kaana xayran lahum foofu la suñu borom tàmbalee nag di yar saxaaba yi ak jullit ñi di leen xamal xaqi ku mel ne rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ak ñi nga xam ne bu fi jógee ñu taxaw taxawaayam mu ne inna allazina yaqub ya ayyuha allazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'uruna yéen gaa ñi nga xam ne gëm ngeen bu leen yëkkati seen baat mukk ci kaw baatu yonent bi bu ngeen di wax bu leen di wax ak moom ni ngeen di wax ak seen moroom ndax seen jëf yi ngeen jëfoon kon day yàqu te du ngeen ko yëg nga xam ne kon li yàq jëf bokk na ci mu di yonent mu di wàlli yu bu mag nga teggin yi war sa diggante ak moom nga wàññi ko moo xam da ngay wax ak moom di wax ca kaw walla ngay wax ni ngay wax ak keneen bokk na ci yi nga xam ne itam day waral mujj gu ñaaw ak sukuraat su metti ñuy nodd ngay wax wala ñuy jàng alquran ngay wax wala ñuy wax xadiis yonente bi sallallahu ngay wax kon teggin yooyu nga xam ne moom la suñu borom jàngal jullit ñi ñoom bu ñu bu ñu fi jógee bërëb bi ñu leen denc mu ngi mel ne bu ñu dee dund bi ñu nekkee ci àdduna noonu lañ mel worma yi nga xam ne moom nga leen waroon a wormaal bu ñu toogee noonu nga leen war a wormaale boo xamee ne ñu ngi leen denc itam ci suuf si bu fekkente ne jaam bi nga xam ne suñ borom daf ko ormal ormaal ko ba lépp lu bokk ci moom ba ci yéreem yi muy sol wala lépp lu muy laal am orma am barke boo xam ne mën naa alak nit mbubb mum doon sol sax boo ko joxee nit ku laabul boo amee basira dangay dégg mbubb mi di jooy ak lépp lu mu doon laal ñu jox ko keneen koo xam ne kii du ku sell nga dégg ni muy jooye ngir bañ a dem ci loxoy kooku wala ngir bañ laalanteeg yaramu kooku noonu nga xam ne orma jooju nga xam ne xaqam la jumu moom nga xam ne loo ci wàññi daañu la ko laaj ëllëg te wàññi ko di yàq sa jëf di metti itam sukuraat kon boo jëmee ci moom jëllale naa ne waratoo waxtaan waxtaanu àdduna warlu waaye sa xel rek war nga ko génne ci àdduna def ko ci yàlla ba ba nga fay jóge loolu mooy tax nga gën caa jariñu te mooy tax doo ca loru waaye fépp fu ñuy jariñoo nit mën na faa loroo ndax la mu laaj ngir jëriñee boo defee lu safaanoog moom rek mën na laa lor ndax jëriñu ci dara mu ngi aju ci gëm ko bi Cheikh Abu Yusuf Bustami ne beneen wàll yi moo doon ku doon siyaare bàmmeelu Cheikh Abu Yusuf Bustami mu ne ku ko siyaare seeram dana araam safara am benn jàngkat boo xam ne faqih lay xam ne ko yéen daal te ngeen di wax ba di wax lu ngeen xamul waaw xanaa bu fekkonte ne Abu Yazid Bustami am na daraja yi ku ko siyaare mucc wala nga xam ko Omar ibnu Hisam maanaam Abu Jahl mi nga xam ne dafa dëkkoon ak yonant bi benn dëkk ba ñuy xaleel ñuy bëree ak di xeex di laalante te ma nga dëkk safara defe nga ne bu Abu Yazid amoon jooju daraja xanaa yonent bi kon kon Abu Jahil ak ñeneen ñi mel ne moom ñëpp daañu mucc mu ne kon loola la tax ñàkk xam-xam Abu Jahil ni gisul yonent bi kum gis jirim ba Abu Taalib yaroon la gis jirimu Abu Taalib ba la gis moom waaye gisul yonantu yàlla bi mu dal di wedam xamatul lu muy wax kon ki bëgg a jëriñu ci wàllu bi day xam xàqam jox ko xàqam wormaal ko wekk ko ni ko ko suñu borom sante yonent bi sallallahu alayhi keroog bi nga xamee ne Abdullah ibn Ubay ibn Salul benn naafeq bu xam nekkoon ci Madina di soxlu jullit ñi di soxlu yonent bi lu ñu fexe mu yàq ànd ak euh, yahoot yi lu jullit ñi fexe mu di leen ko xamal jaxasoo ñoom di lore di yàq ba nga xam ne fitnaal na jullit ñi lool ba mu doy waar bi mu demee bay gaañu mu dal di yónni doom ji doom ji ñëw ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañoo bëgg abu abdullah ibn ubay ibn sulul daf bëgg nga jox ko sa yére ndax mu ngi faatu ndax mu barkeeloo ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam du mu jógee taxaw si sidna omar jàpp ci mbubbam ni ko abdul naafiq bi nga xam ne maari di teel sama ndax da nga da jóg dem ci bàmmeelam wala da ko jox séere mu ne ko bàyyi ma Omar dañ maa tànn loo te maa ngi tànn yërmande yenn riwaay yi dañ bi nga xamee ne Sidna Omar insisté na ci ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam doo ko jox sa yére ndax ko sobe la dafa ne bàyyi ko la koy jëriñ du mbubb mi lu tax mbubb mi mënu koo jariñ te génn wëñ rek bu bokkoon ci mbubbum yonent bi sallallahu alayhi wasallam mën naa ramu ab dëkk lam ko gëmul a tax ñàkk gëm gi mu ko ñàkk gëm ak ñàkk teggin gi mu koy ñàkk teggin moo waral loolu kon nag bépp waa ju baax boo bëggee barkeem dal la danga koy jox xàqam ci wormaal ak ci màggal boo jëmee ci bërëb bi bërëb bu ziar bu doon sax yeneen armeel yéle da nga asalaamaaleykum diyaara qawmin muminina rahimallahu almustaqdimina minkum wal mustaaxirina minna wa inna insha allah bikum la laaxiqoona li nga xam ne noonu lañ ko yoon diglee boo duggee asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa nga toog ci gannaawam jublu penku mu nekk sa diggante ak penku nga jàng ñaan yi ngay jàng jox ko addiyee ba noppi walbatiku dikk ci kanamam teewlu suñu boroom ci sa xol nag say soxla ci barke bi yonent ak war may tëdd ci béréb bii noonu la ñuy tëralee ziar bu ko defee tuyaaba ju bare bare bari ak njëggal xaj na ca ak sa aajo yi la itteel faju defe naa mën nañoo kon nag man bala may laaj maa ngi leen ñaanal rek ci barke bu guddi gi suñu borom taal ka faj suñu aajo te yàggal na sunu kanam jeey rasulullahi sallallahu alayhi wasallam li ma doon laaj na man ku ma ko leera mooy soomoo yi ruxyatihi aftaroo yi ruxyatihi fañ xuma aleykum faatimoo waaw waaw ndax li ma ci leerlu mooy dama gis ci télé bi am ñu nekk foo wax ni jamono yoo xam ne dégg nañ ni Màkka woor na dañu am ci lu leen leer rek mën nañoo woor li ma jaaxal na mooy benn ki ñu wax kuréy bi yu bi nga xam ñëw na ci na Abbas te xamal ne ko gis na weer yi maag mu aawiya ba waa saam sax woor nañu moom da ko wax ni ko duñu nu woor ci loolu nun ndax tey lañ ko gis te dañuy woor ba ba ni matal ndax loolu lañ yonent bi digal loolu nag kon laa ci doon laaj bi ci des mooy aaya alquran bi bi bi muy wax naan inna kayda saytaani da ifan ak kaana i ifan ak uh, ci mbirum jigéen ñu mën a inna kayda kunna asimun bi ci des it ñetteelu laaj mooy am na bu ma la bëggoon laaj waaye ñëw naa fekk la ñaari yoon ngay waxtaan tudd ko tudd ko mooy bi suñ bàmba naa ajuru la si naasa ani wala mu yetu sa xaawata te doom fi umul kutub waaw weer waxtaan nañ ko ba tàyyi suñu wax ne suñu boroom azza wa jalla lislaam daf koo tëral ci weer wi nga xam ne mi ngi aju ci weer wii aju tëralu ko ci atum jant bi atum jant bi xam ngeen ni mooy weer yi biir yi ak weer yi ñuy wax weeri tubaab nga xam ne amul ñii gis nañ ko ñii gisuñu ko ku nekk xam na weer wu ci nekk fu mu kañ lay tàmbali ak fa muy yem ak ñaata fan la nga xam ne su suñ borom bëggoon jullit ñëpp di woorandoo ko neexoon mën na ne di leen woor février wala mars wala avril walla mai bu ko defee du am séenu ak ñiy woor ñii bañ a woor wala ñu naan feeñ na ak feeñul l'islam dañ koo tëral ci atum weer wi loolu nag am ay secret yoo xam ne moo tax sallallahu alayhi wa sallam ne suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi aw kama qaala wa in ghumma alaykum fa uddu min kamali sha'ban bu ngeen di woor na fekk da ngeen koo gis ngeen woor bu ngeen di dog maanaam bu ngeen di wari da ngeen koo gis wari waxtu woo xamee nag asamaan si dafa niir ba mënu gis ci seenu bu njëkk weer wi ngeen wàññ fanweeri bis fa tàmbalee ko fa barax lu yemoon maanaam ngeen woor fanweer rek la la wax woor fanweer kon bu ngeen gisee tekkiwul ne kenn ku nekk da nga koy teg sa bët soog a woor bu dee korite danga koy teg sa bët soog a korite déedéet dañoo sàkk lu mën a leeralal ne weer wi feeñ na loolu moo di bu nekkee ci réew yi jullit nga xam ne àttee lislaam ay dox dafa am qaadi joo xam ne ku gis weer wi ca moom ngay jubal boo demee ne ko gis naa ko ñi ko gis bu fekkente ne ñaar lañu dañuy woo ñi leen xam ñu seet leen ba xam ne ñii ñu maandu lañu te duñu niti seenkat bu ko defee qaadi ja bu làmb toog gëstu laaj ñi leen xam ñëpp ba mu doy ko ne ñaar ñii ñu maandu lañu mu dal di xam le ne weer wi feeñ na booba téléphone amul rajo amul télévision amul booba daanañ sor xolle daanañ yéegit ba ci montagne bu kawee ñu taal fa safara ku ko séen xam ne weer wi dafa feeñ loolu moo daan dox ci réewum jullit moo xam ne buur bi jullit la àttey lislaam lay doxal kenn sañu la taal safara wala nga fetal wala nga sor xolli ci lu dul mu jóge ci ndigalal kooku bu fekkente ne ñi ko gis du ñu ñaar lu dul bari nañu mbooloo lañu déesatu ci seet ndax maandu nañu wala maanduwuñu bu ko mbooloo xasee gis rek daañu saxal ne weer wi feeñ na léegi benn bërëb sàngam bu fa weer wi feeñee mën nañoo woor borom àlluwu gàtte koy wax ndax màkka du ñu jullee ñoom suba du ñu jullee ñoom tisbaar du ñu jullee ndoog ñoom takkusaan wala timis wala gee kon mënunoo bokkub àtte léegi weer wi sax am na ñu naan weer wi mën na feeñ màkka fekk weer wi ak jant bi ñuy so jant bi njëkke so mu xaw a ndëm ñu gis weer wi ci waxtu sàngam jant bi ñëw ba bi muy so fi nun ànd ak weer wi mu feeñ ñu nu gis ko bu ko defee ñu gisandoo ko ak Makka loolu sax lu jafe la waaye ba tey kenn weddiwu ko li ñu weddi moo di waa Makka woor nañu rek nan woor te gisuñu nu gis wala nu ñàkk a gis nu sax ñu àtte ci ñoom loolu moom la yoon dàq nun kay sunu réew mii ñooy gis weer te gis biñ ko gisit kenn ku nekk da ngay ndax gannaaw amul qaadi joo xam ne mooy joxe ordre amul ñuy ñuy def taadil ak tajriix maanaam ñooy wax ne ñii maandu nañu wala ñu kenn ku ne dangay seet li la wér ba doy la rek nga soog ci wéy léegi loolu mu wax ne jant bi mën na ànd ak weer wi ba ñu ba ñu soyee ca màkka waa màkka gis ko ñu teg ay heures yi nga xam ne mooy dox diggante ak fii ñu so àndoo ba tey dugg na tuuti njuum te ndax jant bi moo gën a gaaw weer wi xam ngeen ne jant bi day raw weer wi ba jotaat ko waxtu woo xamee ne nag ñu ngi xaw a soono ndax weer wi moom du jóg ci asamaan fi bu nekkul fii mu ngi fii waaye leeru jant bi mooy tax duñ ko gis waxtu woo xamee ni nag jant bi raw na weer wi di ko raw ba jotaat ko fi mu koy jote nag di ci sunu sowwu nun bu ko rawee tuuti nga xam ne dana ko njëkk a so ba lëndëm tuuti ñu mën a gis weer wi mu feeñ bu boobaa weer wi dana feeñ bu fekkente ne weer wi feeñ na foofu nag fekk na ñële ñoonu ko njëkk a gis lu tax weer wi fële lay fu féete penku lay njëkk a feeñal lu ko waral xam ngeen ni day bu fekkente ne li ñu naan weer wi xëy na du dara lu dul jant bi njëkk koo fenk ndax bu fekkente ne weer wi dafa njëkk a feq jant bi ba jóg tuuti bu jant bi jógee du tee ñu mën koo gis waaye bu fekkee ne jant bee ko njëkk a génn nag dootuñu ko mën a gis bu ko njëkkee génn nag njëkk génn googu mu koy njëkk génn daf koy gën a raw di ko gën a raw ba ba mu koy jotaat fu mu koy njëkk a jotee fi nga xam ne mooy penku fa la koy njëkk a jotee moo tax ñoom ñu dina ko njëkk a gis gën a gaaw googu ko gën a gaaw nag moo tax dana jafe ñu gis ko ci bis bi ñu jis ko ci bis boobu dana jafe waaye bu amee it waaye li nga xam ne moom la ñu seree a sant mooy nañ ci teg suñu bët rek du ku nekk ciy teg sa bët waaye ñaar ñu maandu wala mbooloo nañ ko jis rek bu fekkee ne ñaar ñu maandu wala mbooloo gis nañ ko nag booba dog ñot na li nga xam ne nag mooy li njuumte béréb sàngam boo xam ne dafa sori bokkul ak fii àtte ñu gis ko nga sukk ca gis nga ko ñooy gis bëgg caa woor moom la sariya dàq ndax Abdullah ibnu Abbas noonu mu ko waxee woon noonu la ko ulama yi aw awliya yi ñu ci bari ñu jege ñoom am na góor gu fi nekk li fii keroog benn bis man la ko doon waxal ne diw sàngam benn sëriñ bu mag la daf ma soon a fekk sëñ Tuubaa xaw ma fan ci jamonoy koor weer wi ci bis boobu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñeent ñu war a seenu weer wi fekk góor ga bëggoon a jullee ji këram mu jóge fa ca tàkkusaan xaw ma ca tisbaar bi mu demee ba àgg ci dëkk boo xam ne fa la jant fa la ko jant soye ñu gis weer wi mu ne gannaaw dama bëggoon a waree ji sama kër waaye gannaaw weer wi feeñ na te soriwuma dëkk bi sëñ Tuubaa ne naa dellu julle fa bi mu dikkee li ko ko mu ne ko demal ba fam ko gisee yaag ñooñu ngeen wari nun wareegul ndax gisaguñ ko loolu fekk si na li Abdullah ibn Abbas waxoon kon bu nu nekkee fii weer wi ñu gis ko Maroc nu bëgg a woor ñàkkuk dégg la wala ñu gis ko Mauritanie walla feneen nu bëgg a woor ñàkkuk dégg la ndax xam ngeen ne jamono yonent bi jamono yi ci topp yépp day bu ko Mauritanie gisoon sax te booba amul lu dul fas balay agsi fi nun jant bi so te kon duñ ko mën a woor tey buñ dikkee it duñ ko nangu ndax noonu nga xam ne Abdullah ibn Abbas noonu la ko dàqe woon kon it noonu lañ koy dàqe weer wi daal réew mi ñu nekk nee ñu réewum layig la amuñu xaas yi joo xam ne dañ koo tànn ci yoon ba teg ko muy ittewoo nga xam ne ku gis weer wi da ngay jubal ci moom du kenn du ñaar du ñett kenn lay doon boo demee wax ko ko muy taxawal mbooloo di leen woo di laaj du ngeen xam ci ñi di ko gëstu ba mu wéer gannaaw loolu amul nit ki na seet ne ni ma ko waxee woon rek boo amoon fukki junneem di ko dénkaane ka ko doy ba doy ko ca bu ca amee ñaar bu ko nee weer yu feeñ na waaye koo xam ne kii wóoluwoo ko ci sa xaalis bu la leboon doo ko lebal te doo ko ko dénk mu doyu ci sa alal te bëgg laa doy ci sa diine diine ji woyof rekk la diine ji woyof la waaye leer moo di yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee woon na di dem ci jamono ba àgg foo xam ne nit ki téye diineem day mel ne ku téye ku ngëpp xal ci loxoom waaye bu boobaa ku téye diineem da yoolu juróom fukk ci ñii nekk fi man yoolu juróom fukki saaba seen jëf ku ko am loola doy na sëkk kon nag lu jamono metti metti ku nëpp sa diine gannaaw da am loolu nanu ñaan yàlla bokk ci kuréel bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne laa tazaalu taifatu min ummati zahirina ala alxaqi laa yadurruhum xilaafu man xaalifahum ba xadis ba jeex sama xeet wi faw muy am kuréel boo xam ne lu jamono soppiku soppiku dañuy nekk ci dëgg rek sax ca te ku wuute ñoom ku leen weddi ku leen xas ku féew ak ñoom du leen wàññi dara ba ba taxaw kuréel bu mel noonu du am yàlla day am rek yàlla na yàlla boole ca ñooña ndax fii nu toll doy na waar coow li bari na dama daan wax toujours ne lépp nag communication yi rek a ko waral ndax ñaari dëkk daanañ dend bii dëkk gis weer yu um bii umuñu lu dul ci ëllëg sa waaye kenn du ko def problème waa di waa dëkk sàngam di umoon nañ ndax gis nañu weer wi waaye fii mu nekk li xew yàqu-yàqu bi weesu na loolu ndax léegi bu ñu xasee wax ci rajo bi ne diw sàngam tudd kilifa ne woor na te fekk kilifa googu xëy na dafa am la ko doy geneen kilifa amul lu ko doy bu wóorul ñu ne daf kee daf koo doyul wala daf koo diingat yàqu-yàqu yooyu bu ko defee jullit ñi xaajalikoo murit yi jaar fii ne tijaan yi rajo bi la ñuy wooral tijaan yi jaar fii ne murit yi sëriñ bi lañuy wooral yàqu-yàqu yooyu mooy li gën a mat a waxtu kenn ku ci nekk ku am loola doy wooral ku am loola doy waril toujours ma misaal ne ñaari nit sax mën nañu bokk benn kër ci yoon woorloo ko ci yoon bañ koo woorloo bu ma bokkee yow nekk ci kër gi ñu séenu weer wi nga séen ko te man séenuma ko amuloo ko la ñaareel yow mi ko ñu faaw nga woor yoon woorloo la waaye man mi gisul ñaar ñu ma ko wax kenn rek ma ko wax yoon wóorloowu ma rawatina nag ñu bokk am réewum lëmm waaye waaye ku gis weer ku am lu la doy wooral ku mu doyul négal ba am lu la doy woor te ñu bàyyi coow li ak wax ji féewale jullit ñi ñi jaar fii ñi jaar fii di xasante loolu mooy li ci gën a bon ci ñàkk xam rek dem naa ba dégg ñu naan ay ay jàngkat yu naan jullit ñi nañu wut calendrier di ci woor calendrier yi sere a dàq ne ko nañu wut calendrier di ci woorandoo xanaa dañoo xamul ne yàlla santul jullit ñi nañu woorandoo santu leen nañu julleendoo santu leen nañu koreendoo santu leen nañu tabaskiyendoo nañu bàyyi wax waxi caaxaan yi loolu wax la joo xam ne teguwul fenn li leer daal kenn ku nekk na la sa diine itteel ngay dem ba am lu la wóor a wóor a wóor loo xam ne lii doy na la sëkk nga jàpp ca ndax amunu xaadi joo xam ne mooy yilif réew mi képp koo xam ne kii gis nga weer dangay jibal fa moom mu am sañ-sañu ak man-manum mën a euh, laajte ba xam ñi wér mu woor lu amuñu ko kon nag kenn ku nekk na nga jàpp ci lay wér waaye bu kenn wax kenn wooral ak wari la ak yëkkal xam jigéen ñi dene dañuy laaj jigéen joo xam ne nii ak góor dafa ñëw di ko bëgg te moom bëgg ko waaye lekk na alalam mu ne alal jooju ndax riba la wala déet riba ñaari yoon lépp loo xam ne li nit ki lépp loo xam ne nit ki wut jox na la ko te bëgg am a tax mu jox la ko te bu xamoon ne du am du la ko jox rek war nga ko ko delloo boo ko delloo riba la dégg ngeen loolu ci ñëw di bëgg nit ki lu mu la jox te nga xam ne bu xamoon ne du am du la ko jox te bëgg a am a tax mu jox la ko te bu ko leeroon ne du am du la ko jox kon bu amul rek war nga ko ko delloo yoon nag dafa xóot loolu man du sama wax du sama xalaat sharia la waaw li muy laaj itam lu mën a jaaxal nit la ndax dafa ne alquran dafa ne pexem seytaane lu woyof la ba noppi dem feneen ne pexem jigéen lu foor la muy laaj nag loolu nam mën a demee lan moo waral inna kayda sheytaani kaana daifan nekk pexam seytaane lu woyof la inna kayda na azimun ci suurtu yusufa ci mbirum zalixa ak sayyidina yusufa alayhi salaam pexe jigéen lu màgg la pexe jigéen nan lay màggee pexe seytaane di woyof seytaane nga xam ne mën na dugg ci doomu aadama ànd ak deretam di daw mën na dugg ci buntu xolam di jax-jaxal mën na dal laal fii xolu nit dem laal xolu kee ñu jaxasoo léegi ñu ne fexeem lu doyee di la jigéen di nit koo xam ne kii ñu bari defe ne ña góor a ëpp xel jigéen ñu ne pexeem lu foor la lu rëy la loolu lañ ko mën a déggee am na ñaari misaal man na ma ni ñu ko waxee sax firi xaw ma explication am na ñaar bu seetee li ñuy wax euh, asbaabu nuzuul sababu nuzuul yi fa qaatilu awliyaa ash-shaytaani inna kayda shaytaani kaana da'ifan te xam seytaan ci ko ànd ak yàlla lu woyof la ko ànd ak yàlla te xam seytaan lu woyof la ndax suñu borom dafa wax seytaane ne ko inna ibaadi laysa laka alayhim sultaanun ma jaam ñi nga xam ne ñooy samay jaam dëgg de benn pexe doo ko am ci ñoom doo ci ñoom dara boobu xare la woon inna kayda shaytaan faqat la awliyaa shaytaan inna kayda shaytaan kaana daifan ko ci badar seytaane li wax góor mag mais góor mag bis boobu bamu mu jànloog malaayika yi ci xare badar dafa nank lafu mbubam ba xër daw ba àkk yi ca géej ga ba jéggi géej ga ak tiit mu ne inni ara ma taraw na inni axaafullah wala shadidul iqaab dafa doon ruux yéefari màkk yi di leen digal ay pexe yi ñuy def ba rey jullit ñi ci xare bi naan leen yéen junni ngeen te ñee ñetti téeméer lañu di leen ruux di leen jañte di leen encouragé li adadin laali li xam ba iblis ne jàkk ci ñoom rek dafa dal dina bëxër ñett daw xel woo xam ne nee ñu dafa jéggi géej gi taxaw ca gannaaw naan inni ara maa laa taraw na gis naa damaa gis lu ngeen gisul de inni axaafullah daay maa ragal yàlla wallaahu shadidul iqaab yàlla mbugalam dafa tar kooku pexem amul solo foofu pexem solo ci benn explication bu njëkk bi eh, inna kayda kunna daif nag inna kayda inna kayda kunna azimun nag pexey seytaane pexey jigéen lu foor la dañu ne góor ak jigéen suñu wéetee góor gi day amee dooley gaynde ak xelu mbaam jigéen ji amee xelum seytaane ak dooley yoo boo ko defee rek pexem dal di màgg nag lool nag inna kaydakunna azimun lii indi ci aaya jooju suñ boroom day nettali mbiru yonte yàlla Yuusufa alayhi salaatu wasalaam ak Zalixa xam ngeen xissa bi lu siiw la bi nga xamee ni moom Zalixa ma ne si daal buuru Misra soxnaam comme yonte yàlla Yuusufa doomu baayam yi dañ ko añaane woon ba sànni ko ci kàmb bu nekk ca àll ba bi nga xamee ne jëgg ji romb nañu di wut ndox ba yoor seen baag mu jàppandu ca génn ñu dem jaayi ko Misra biñ ko jaayee misra jënd ko nag yóbbu ko ci kër buur bi xam ngeen yonent yàlla yusufa ni ñu waxoon noonu la rafete woon ba doy waar rek bi nga xamee ne zalixa moomu mi ngi jéem a sàkk pexe ci moom xam ngeen xissa bi bi mu xottee bi mu dee daw te mu xotti mbub mi jàpp ko mbub mi xotti ci gannaaw ma falammaa ra'aa qamiisahu qubata min qaala innahu min kaydikunna inna kaydakunna aziimun pexe yooyu xam ne yusufa lawlaa an raa burhaana rabbihi budul woon li nga xam ne su borom xas na ko bind ca diwaanu yonante ya dëkkal ko àjjana mu bokk ca ña gën a màgg ci way texe ñi bokk ci ñu yàlla wóolu ba yónni leen ci jaam ñi ñu di ay yonent bu ca bokkul woon leneen am ngir xam xamle nag kon loolu pexe moomu nga xam ne te bu ca bokkul woon li ko naroon a def du dara li ko naroon a yóbbu loolu du dara lu pexem jigéen loolu moo tax mu ne inna kayda kunna azimun pexem jigéen lu màgg la ndax wala xad hammat bihi wa hamma biha lawla an raa burhaan rabbihi wala xad hammat bihi wa hamma biha lawla an raa burhaan rabbihi xam ne kon foora foora foora la ku ci nekk nag maanaam bi nisbati la maanaam li tubaab di wax lu relatif la buñ ko seetee ci context bi mu kii moo tax ñu waxee ko noonu Iblis ka pexeem woyof na ci jaam yoo xam ne dañoo ànd ak yàlla it eh, malaayka yi mu séen ba eh, jooju ba daw xel woowu xanaa ñu ne ina eh, ne ini ara malaata ne ini axaafullah ñu ne naka sitaani a nu mu moom moo waral ñu ne naka rek na azimun loolu mooy naasa ani walam yatub yatub saqaawatan te doom fi ummi kutub payub képp koo xam ne xëccoo ngaag man te tuubloo ko ak texe la gu ñu bind ca ndeyi téere texe di gu ñu bind ca ndeyi téere waxoon na ko bi mu nee laqad sabaqtu fala yaxfa ala ahadin ila ala ahadin ashqahu mawlaahu waxoon na ko bi mu nee shaqaa uma lam yahwani qad kutiba wa kawni al abdal xadima wajaba waxoon na ko bi mu nee yaqul man xaalafani xilaadu li mawdicin li ahlihi dilaadu mu ne suñu borom tabaraka wa taala bi nga xamee ne dafay yónni ay yonent ba yonent yi jeex ñi waroon a ñëw ki mujj di Muhammad sallallahu alayhi wasallam te du bàyyi xeet yu mukk ndax ba ba saa di taxaw war na am na secret yoo xam ne ci doomu aadama la ko suñu borom di def du ko def ci malaayika du ko def ci jinne du ko def ci rab ci nit doomu adama la koy def ndax inna aradna al-amaanata ala samaawaati wal jibaali ji ma waxoon secret yooyu du jóg ci kaw suuf ndax bu ci jógee rek àdduna tukki nit ñooñu mu koy def ci ñoom dafa am bërëb bu mu leen di toog loo ñooñu ñaari catégorie la ñuy doon ki nga xam ne dafa doon rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci nam yelle ci moom zahiran wa batinan ak ki nga xam ne daf koo doon ci nam yelle ci moom batinan la zahiran ki nga xam ne daf koo doon zahiran wa batinan moom benn ñu wax loo ko wala ñu noppiloo ko buñ ko wax loo boo ko weddee mu mel ne weddi yonent li nga xam ne noonu la alquran wax ne laa nu farriqu bayna ahadin min rusulihi lislaam moom benn yonent boo weddi rek génn nga ci lislaam benn bu mu mën a doon rek nga weddi ko génn nga ci lislaam naka noonu wilaaya itam ne ñu baadun laa yata baadu waaye day fekk ne ñii dañoo ñi yàlla nëbb moom xam loowu leen jaam ñi yëfi boppam la ñi mu fësloo sant leen ñu ñu woote jox leen ay ay brahim maanaam ay preuve ñooñu ku leen weddi mel nga ne weddi nga yonent ku weddi yonent nag sa sa pexe mu tëtu la xalaat moo tax mu ne tawaafu kulli man alayya ankara inda al ilahi ndax weddi bu fekkee ne dem na ba fés ba nga xam ne tegtal booy laaj rek mu ngi ci dara desul lu dul inaad kon ki ko weddi weddeewu ko rek ñàkk xam weddeewu ko lu dul al inaadu li ñuy wax inaad mooy lan dëng dëng wala daf laa neexul daf laa neexul te lu yàlla def nga ne neexu ma lu ne xaj na ca naka noonu itam dëngante yàlla jaar fii nga ne man fii laay jaar itam lu ne xaj na ca loolu moo tax mu waxee noonu fi abou bistaami dafa am benn suuf yi bu ko invité woon bi mu ñëwee bëccëg la ñuy teg añ bi booyu euh, sëriñ boobu see xam wis bisaa bi ne ko woo ko mu ñëw bokk ak nun mu woo mu ne man dama woor fekk du wooru weeru koor de dafa doon naafi la ci koor rek maanaam woor daal ngir tuyaaba mu ne ko dama woor mu ne ko nee ko na dog mu ne ko dogal ñëw bokk ak nun mu ne déedéet duma dog sama koor mu ne ko yow xanaa da nga xamul kii yow dogal sa koor xanaa xamuloo kii Abu Yusuf mu bañ Cheikh Abu Yusuf Bistami ne ko bàyyi ko kooku yàlla mere na ko ba noppi saaqitun fi aynillaahi mm-hmm. waaye dañu ne aqwaaluhum tutwa wala tunshar seen i wax awliyaa yi i wax dañ koy taxañ teg fii waaye kenn du ko wesaare ndax day xóot naqaree dégg te ko ko weddi yàqu mooy kalaam daa dahaka yaa bali faqul kama qaala daki abdul wadud kalaam al awliyaa lastu afhamu li annani ana anaabuhum ku bokkul ci ñoom doo leen xam araay su na mu xadraati fiq na fuqaha na fiq indi seen jëlaat waaxel ñu mel ne ñoom awliyaa yi ñu mel ne ay seet yu ñu dugal ci seen pekk boroom kenn du leen xam fala seen rim si waat ashkaal yi ñi ñii leen xam seeni naawle rek leen di xam ñi ci des duñu leen xam daa daañu wax loo xam ne bépp bañ koy waxee fekk ñu koy wax ñoom nekkuñu fa yàllaa fa nekk yàllaay wax ñoom seen bopp réer na leen jeex nañ ci yàlla ba xamatuñu am na yoon déet ba yëgatuñu li ñuy wax yàlla ji nekk si ñoom mooy wax bu ko defee ko xamul ne bu ko déggee nañ ci yéefar la mooy bi àll bi xalaat ji ne anal xaq man maay maay maay yàlla maay dëgg ba ko defee ñu rey ko ndax ku wax loolu sharia li mu waral ci mooy rey fekk nag diggante ak boromam dara nekku ci li mu wax dara fekk ko ca ndax dëgg la wax ndax li mu yëg rek la wax waaye nag gannaaw digganteem ak boromam daf ko waroon a denc digganteem ak boroomam waaye bu ko feeñalee ñi nga xam ne ñooy tëral euh, géttani sharia dañ koy géttan te dara du leen ca fekk moo tax ñu rey xalaaj moo tax ñu rey ibnu qas yi moo tax ñu rey ibnu sabin ak ñu bari ci awliyaaw yi dañuy li ñuy wax mandité dañuy dem ba àgg foo xam ne lañuy wax du ñoom ñoo fa nekkati di wax benn yàllaa fa ne di wax wala yonent bee fa nekk di wax boo ko defee jaam ñi ne dégg loolu te ñu xam ne mu demee mu ne day daan gis alxadisul qudsi xadis yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi daf koy wax te mel ne yàllaay wax te moom du ne yàlla nee na day wax mel ne moom mooy wax fekk na yàllaay wax moom mu lañ tuddee alxadisul qudsi ñooñu nag bu ñu comprendre loolu duñ mën a comprendre waxi awliya u yooyu waaye yooyu yëpp nag daf fekk muy loo xam ne ñoom dañ ko war a denc pour ñoom kenn koo ci xam ne nag dem nga ba àttanatoo ko ba nga feeñal ko lu ca war ci yoon daañu la ko def waaye teewul nag it bokk nag ñi nga xam ne dañ koy wax ci xaal bokku la ñi koy wax ci màqaama ñi koy wax ci xaal ñooñu la ñuy rey noonu waaye ñi koy wax ci màqaama ñoom bi ñu koy wax dañu ànd ak seen xel ànd ak seenu dégg ak seenu xam ak seenu lépp am ci ndigal wax ko loolu la ñu ñi koy wax ci xaal